une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer daariha nee na ñaata mbooloo way néew ji doole ñoo daa dajaloo ci këram ku ne mu lay jox jox goo xam da koy ànd da koy booleek reyam ju neex ja mel na aw niir wuy sotti noonu la meloon ci nit ñi wa kam mushtakin yati ilayha bi buksihi fa ashkat bi ma tunsi bihi mahla wal jadba ñaata yoon la ko am jàqare ñëw ci soxna may mu fajal ko njàqarem loolu ba fàttale ko la ko la ko jaaxaloon kon nag kooku yàlla na ko yàlla fayal ngën ji fay ci àjjana yu kawe ya fa anna jazaaha allahu xayra jazaihi bi jannatihi al mawallati taxtawa xisba إلى خير خلق الله صلى إلى هنا diina الهادينا من يسلك اللحبة kon loolu lañ doon ubbee ngir def ko defal ko soxo na si bu ko defee ni ma ko waxee léegi waaye thème bi li tax ngeen tànn ko bokk na ca xam ne sëñ Bachiru sëñ Bachiru mu yoon wi la yoonu murit wépp moo tax sax tuuru thème bi ni nga ko waxee onwaan bi juhudu cheikh Mouhamadil Bachir fi xifdi turaasil xadimi njàmbaar coono taxawaay bi sëriñ Bachiru def ngir sàmm ndonol sëriñ Touba loolu la ñu fas yéene waxtaane ñu jëkk a xam la tuuti kon ci jëmmam jëmmi sëñ Bachiru mooy kan sëriñ Bachiru ci doomi sëriñ Touba yi la bokk yi nga xam ne ci fukk ak ñaar yi fi sëñ Touba bàyyi fukk ak ñaar ñu góor ñoom la fi sëñ bàyyi ñu ne fi ba am njaboot ñooñu nag ci toftale gi sëñ Bachiru mooy ñeenteel bi danga naan Cheikh Moustapha sëriñ Fallou sëriñ Baara sëriñ Bachiru mooy numéro 4 kon kañ la feeñ sëñ mbiram mépp mépp ñett étape la ñetti maraaxil étape bu jëkk bi mooy bi mu demagul ci géej gi état bu ñaara bi mooy biir géej gi bu ñetteel bi mooy bi mu dellusee mbiram mépp dafa tegu ci ñett étape yooyu te day jeexital nag lépp lu xew ci moom ci ñett étape yooyu day yooyu day jeexital ci ci ci mbiram moom Sëñ Tuubaa muy doom yi di xasaa yi di lépp ñett étape yooyu lay lay lay junj ca xasiid na Munawwiru Sudur téere boobu aqbalati dunya ilaya qablu wa bi'tuha wa zaala anil kablu nee na àdduna dama jublu si woon jublu si ku yéeme ma wan ko gannaaw loolu mooy bi mu demeegul ci géej gi nga xam ne mbooloo mi kenn xamul nu ñu toll mbooloo mi niñ daan sotti ko ci kawam ok sëriñ sëriñ abo moom sëriñ Muntaqa fekk si bokki délégation yi nga xam ne ñu ngi fi ci njiitul sëriñ Cheikh Khadim moom sëriñ Muntaqa xam naa danañu leen lim incha allah bu bu bu conférence ba noppee. kon étape bu njëkk bi mooy bi mu demul ci bi mu demegul ci géej gi ne àdduna da ko jublu woon gis nga kore gi mujj woree Tuuba mbooloo mi bari ba taalibe xëq xaw xëqante ngir lal sa jaada bi ba mu nekkee Mbàkke baar yi di waaj a dem sëñ wu Mbàkke imam nettali na ne ku ko fekki sëñ Mbàkke maa moo ko ko nettali nee na waxtu gee daanañ tàmbalee sedd la reer ba sëñ bi romb leen jëm ca jàkka jee julli fajar ta noppi mbooloo mi noonu la tolloon loolu mooy étape bu njëkk bi kon bi ci topp wa baadahu anni adbarat walam amil laha kaw kawniha daara zulam loolu mooy état bu géej gi nee na gannaaw bi àdduna wan ma gannaaw nag koori googu ñuy ñu koy ñu koy xëccoo di lal sa jaade bi koori ga ko ga ca topp rek fekk ku maa yomba ku ko laalul sa jaade sax amu nee na daa génn ci ëtt bi war a julli it gisul kenn ñaare gone yu jigéen nee na ñoo ne ci gannaawam bu kàbbare ñu ree ba daanu ci suuf ndax xamuñ ko nekk na ci biir quartier ga nee na sëñ Modou Khari bu sa ko nattali sëñ Tuubaa ko nattali ci biir quartier gi la nekkoon ak soldaar yi nee na benn bis soldaar yi li ñuy li seen sobe yëpp fa lañ koy def nee na ci kaw lal bi lay jullee ndax bu wàccee taxaw ci sobe nee na benn bis aw dàllam dagg moom sëriñ bi nee na mu taxaw lu yàgg ci kaw dàll bi ndax bu bu géekatee tànkam ci sobe la koy teg nee na ba kenn ci soldaar yi moo ko gis taxawaay bi yàgg mu xam ne dàll wee dagg mu dem wuti lum ko takkale ñëw takkal ko ko mu soo ko mën a dem tumuranke googu la nekk woon loolu mooy état bu ñaareel bi état bi ci topp nag mooy wa baadahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa man nii ci la ma àdduna jublu see nag jublu si xam ne moom mooy gannaaw géej gi sëñ Bachiru nee na nisbatu maa qablahu ilayhi nisbatul waaxidi ilal mi nee na boo tolloolee la jiitu géej gi na mbooloo ma tolloon ak bi mu dellusee day mel na benn ci téeméer kon àdduna jubluwaat na ko waaye nee na mosuma dañ ca la ma kon mooy jublu yàlla kon ñett étape yaa ngi noonu ban étape la ci sëñ Bachiru feeñ mënees naa wax ne ci biir géej gi la étape bu géej gi la feeñ ndax sëñ bi dem na ba am ñaari weer sëñ bi rakk ci gàmmu la la la gaal ga deqi wuti gabon njaal beenu ko rakk ci gàmmu ca maamu koor wala sëñ Bachirou gane àdduna muy ñaari weer gannaaw bu mu demee kon day mel ne Libreville bi muy toll Libreville la sëñ Bachirou feeñ ndax sëñ Bachirou ci jësaaw sëñ sëñ bu mag bi ci saawu chakarum daf ne wa makathtu fiha muddatan ghayra tawila Libreville gëm jëkk wàcc nee na diir bu gàtt laa fa am yàgguma fa waaye ci gëstu ci gëstu wane nañ ne juróom benn weer la am Libreville kon bi muy nekk Libreville la sëñ Basiru feeñ Libreville la waxe woon ne sunu boroom ca Libreville la ma jàpp ndalale mboolem la ma doon bëgg ko yaakaar yàlla mi nga xam ne moo ma may lu benn wàll yu amut ya sarril mu naa la daal li mbir wëli man qaada li ma gaaba wëli jamono yu la sëñ Bachiru gane àdduna gàll yal dëkk bu ñuy wax gàll yal la gane àdduna gàll yal ay tool ya ay tool la yu bokk ci kokki sëñ sëñ bu mag bi muy dem xam nga waa kër gépp moom dañoo tasaaroo wala ahlu anni tafarraqat la wax soxna Fatima du maam nag booba sëñ Bachiru ngi ci moom mu yebal ko kokki ca ndayam soxna xari jang boole ko sëñ Maxtaar Bintaloo yebal ko fa ndax mbokka ma doomi ndayama ngir muy taxaw soxna si lu munta ñàkk nga xool sëñ bi wilaaya geeg lépp téewul mu xam masuuliyaam responsabilité am di wàccoog moom kon ba mu nekkee ca géej ga la sëñ Bachirou feeñ mu bind laatar maame sëñ Bachir yooyu ca kokki sëñ Tuubaa bind leen laatar di leen wan ne yëg naa ne Faatimatu am na gone tàmbale ca laatar ba tàmbale laatar ba aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim min abdillahi taala muhammad ibni muhammad ibni habibillah kaana allahu taala lahu waffaqahu wa raahu wa tawallah ila cheikhi kokki habibillah wa axihi ahmad wa zawjatihi khadija nee na lettre bi maa ko bind jëmee ko ci sëriñ sëñ kokki balla maam Jóob mooy maami soxna sëñ madu maam mi way juru soxna faati madu maam ak ahmadu rakkam muy sox sox sëñ madu maam ak soxnaam khadija muy soxna xarijang mii maami sëñ ba Bachiru na leen nuyoo bu mat ànd ko teraanga laa leen boo laa boole ci leetar bi li ko waral mooy ngeen xam ne maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm wa sixati l badani wa sixati diin maa ngi ci wérug yaram maa ngi ci wérug diine ñaar yooyu nag dafa jafe woon ci ko tubaab bi yóbbu boole wérug yaram ak wérug diine sëñ Tuubaa ne leen maa ngi ci na leen wo bi an nii na xam ne itam fàttewuma leen diiru ba ma génnee ci yéen ba tey yëg naa ne nag wax nañu ma ne Fatima am na gone na anna Fatimata laha gulaam noonu la ko waxe na leen maa ngi ñaan yàlla mu seral sunuy xol àdduna ak alaaxira na na ngeen xam yéen samay mbokk tey samay goro noonu la ko waxe wa alamu yaa ixwaani wa ashaari yéen samay mbokk di samay goro na ngeen xam ne man yéefar yi ma nekkal amuñ ci man benn sulpa benn kilifteef mënuñ maa defloo mënuñ maa dindiloo li ni abdullahi taala man jaamu yàlla la loolu mu ne leen te yàlla wax naa kilifa gi yéefar yëpp di iblis ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan jaamam yi dëgg du man ci ñoom dara te ñoom ci la bokk walakin akthara naas la yaalamun ne leen bu ngeen déggee sama wax jii nag da ngeen na ngeen xam ne nekkewu ma ci géej gi lu dul jaamu yàlla te fuñ ma digale ma dellu si da ngeen ma dal di gis incha allah léppam kon mi ngi ci loxol boromam ne Fatima nag di soxna Fatima du maam lépp li war ci moom ci dund danaa ko fay lu ngeen ci def danaa ko fay bu ma dellusee incha allah ne leen kon yàlla na ma leen yàlla fayal ne yow Ahmadou nag muy sëñ sëñ Madou Mam mii waaye soxna Fatima Madou Mam ne ko nanga nga farlu ci jàngal ko diineem moom soxna Fatima moom lay wax wa wajtahid ya axi Ahmad fii taalimiha kon sëñ Tuubaa ku yitte woo woon lañ njàngum soxna yi loolu la ko wax na nga farlu ci jàngal ko diineem ndax bëggoon naa ko te danaa ko def incha allah ne ko danaa ko def te danaa def lépp loo xam ne war na ma ci moom ci àq danaa ko def li anni raadin anha wa ndax gërëm naa ko moom Fatima gërëm leen ko Sëriñ Tuubaa seereel na ngërëmam waaye yuru Sëriñ Basiru ne leen tëje leetar bi na ngeen ma jottali sama nuyoo ci Moxtaar Bind ak mboole mbokk yi kon loolu mooy leetar bi wane na sëñ Bachir bi muy feeñ sëñ Touba nga ca biir géej gi ba mu fa amee ay at sëñ Touba moom ay at ca géej gi sëñ Mababou Guèye sëñ Mababou Guèye mbokkum Cheikh géey Guèye yónnee ci sëñ Touba benn leetar ca géej gi di ko yëgal xibaaru faatuk Cheikh Adama waaye jënd ab kaamil ci ku ñuy wax sëriñ Ibra Silla boole kook leetar ba jox ko sëñ Touba addiye mu fekk ko ca géej gi sëñ bi delloo silu lu kaamil bi ci ci réew mi téere bi ne leen bu Mouhamadul Bachir waree jàng nañ ko ci nañ ko jox mu jàng ci. sëñ Moustapha Bachir mi ko nattali da caa teg ne téere ba ba fi mu ne nii mi ngi man loolu la ci teg. kon sëñ Bachiru noonu la jàng mate dal jaar ci sëñ Daamatu Rahmaan tàmbalee fa gannaaw bi sëñ ci sëñ bi jox ko sëñ Ibra Binta Sylla gannaaw mu jox ko sëñ Bay Jaxate mu jàngal ko ba mokkal bind ay kaamil yu bari. jàng tajwid ci ahmad ibnul hasan benn naar la boo xam ne bu masaan jàng alquran sëñ Tuuba danaan hakada unzil nii ko naar bi jàngee ne la alquran wàcce kooku moo jàngal tajwid sëriñ Bachiru tàmbale jàng xam-xam ci sëñ Tuuba waaye dafa tàmbale ab diir yéeg ab diir yéeg ne sëñ bi amatul jot ndax ni nit ñi sotti koog lim toggoo ci jaamu yàlla liggéeyal yonent bi mu mu laxas dem Muritani gànnaar ngir jàngi diir bu gàtt la fa am sëñ Tuubaa yónnee luy ndaw ñu jëli ko ba mu delsee mu ne ko lu ko lu la taxawoon a dem mu ne ko jàngi xam-xam mu ne ko toogal danaa la warlul xam-xam bu gën ba nga sàkku ci woon kon noonu la noonu la dem gannaaw bi mu ñëwee nag far mbooloom naar di ñëw njaarim di di fekk sëñ Tuubaa di siyaare si ku dem rek sama rom ñëw nga xam ne fànn gune rek ku ko xam bu fa jógee ku xam ganeen fànn ñëw sëñ Abdou Samad moom sëñ Abdul Qadir am xasida gum def ci sañ Bachiru ak minan maa ngi ko cay wax in gaadaral bayta faqihun zairu makanahu ata adibun shairu boroom xam-xam fànnuk faqih ku xam fànnuk fiq bu ñëwee siyaara ba dem rek ku xam fànnuk ëdëb la sëñ Bachiru jàngee xam ba géeju ci lool xam-xamam moom defe naa ñëpp mën nañ ko seere sëñ Moustapha Abdourahman Lo mi nga xam ne da koo xamoon lool di boroom xam-xam moom it day misaal xam-xam sëñ Bachiru ci téere bi mu bind ci moom tudde ko Mouhamadul Bachir shaxsiyatun xaalida maa ngi cay wax ne sëñ Bachiru bu dee ci xam-xamu feq kan ko cay kan cay gamgal kan cay gam-gam leel mooy Saxnuun wala Ibnul Qayyim wala Ibnul Qasim ñoom sëñ Cheikhouna mi defe naa xam nañu ñooñu baax ni ñu géejiw ci wàllu wàllu feq mu ne bu dee ci xam-xamu tawxiid Abul Xasan al yi rek nga koy gam leel bu dee ci tasawuf abul qasim al mi nga xam ne moo xàll yoonu tasawuf noonu la ko toppee fànn gu ne mu ne kaca raw nga koy gam-gam leen tëje ko naal innahu kaana bahran fi jamii al funuun islaamiya sëñ Bachir daal géej la woon ci fànn xam-xami diine yépp ba ci xam-xamu médecine xam-xamu faj sëñ Bachir da caa amoon xam-xam dégg naa ci benn taalibeem bu mag sañ Mokhtar Diop Tiib di mbokkam mu ne jamono yi donga yi na ci daara ji dadaa def bu dadaa yónnee karité ak tiir ñu koy jëndi Casamance di ko indi waaye jamono yi jamono yi lolli karité gi ci la moom la ñuy booleeg laax bi donga yi di ko jëfandikoo mu dee jamonoy cooroon tiir gi lay joxe ndigal ñu koy booleeg laax bi nee na mu ne leen bu lollee ba mu sedd karité moo gën ci nit bu cooroonee ba mu tàng nag tiir moo gën ci nit noonu la noonu la amee woon xam-xam ci fànn googu sëñ Moustapha Bachiru danay nee na bu ma doon natt xam-xamam daal dama naan agrégation diplôme boobu laay jox sëñ Bachir am na téere yu masa commande lu ca ca Égypte jamonoy tubaab yi bañ ko indee ndakaaru téere yi tubaab yi it bañ gisee téere yi dañoo jaaxle kan sëñ Bachir fu mu mën a xamee tuuru téere yi sax ba koy ak lu mu koy doyee ndax kawe gu niveau téere ya kawe ñu woolu ko mu dem ndakaaru ñu boole ko ay professeur ay fan ñu koy natt ba xam ndax niveau àgg na ci mën a yor téere yi bañ amee mu ay fan lañ ko joxe téere mu xam ne kii xelam ak xam-xamu àgg na ci mën a yor téere yi sëñ Moustapha Bachir mi ko nattali nee na da caa teg ne téere ya mi ngi ci maktaba bii ma ko defal ci ci pénc mi téere yooyu moo tax sëñ Habib Mbacke imam mi nga xam ne ñëpp xam nañu xam da ko da ko tudde woon bachirul almi wa diini sëñ bachir mu xam-xam ak diine ca xasida gam ko doon marsiyal kayfa alxayaatu ala ayshin yunaxisuhu faqdul humaami bachiril na benn naar bu mën a tooñ waaye day seere xam-xamu sëñ bachiru axyal bachiru la day na mayita diini min baadi ma qaala xaalu diini waa diini nee na sëñ bachiru lañ ci xam-xamu diine moo ko dekkal nga xam ne diine yëkkati nay loxoom bay bay wooteeg wallu sëñ Bachiroo ko wallu mu indi daal mu indi tooñ ga nag maa kuntu ahsibu anna al ilma tahrusuhu duna al bayadini fityaanu sawadini ne mosuma jortu ne xam-xam nit ku ñuul mën na ca àgg fu nit ku weex àggut ne loolu mësuma koo xalaat nit ku ñuul mosuma xalaat ne mën naa àgg ci xam-xam fu nit ñu weex ñi àggut waaye sëñ Bachirou tax na mu gëm loolu dégg naa ci sëñ ku ñox wax sëñ Mouhamadou Diagne ci magi taalibe mi la bokkoon ñu daa ko wax Baye jaañ donc ab tër bi yeew la woon taqoo ak sëñ Bachirou nee na am na benn naar bu mos a jógee Algérie di gëstu gëstukat la dem na ci réew yu bari di gëstu ba mu ñëwee ci sëñ Fallou mu yebal ko ci sëñ Bachirou nee na ba mu ñëwee sëñ Bachirou ne ko ngoon gu may naa la fanweeri minit genn wàllu waxtu nee nag tàkkusaan gu ne mu ñëw sëñ Bachir toog muy laaj muy tontu ba fanweeri minute mat mu jóg bàyyi fa naar ba waaye nee na bu jógee naar ba fa lay toog moom ba jant bi so nee na ba mu ko defee ay fan naar bi la mu wax mooy kii ma gis daal li mu xam du lu ñuy jàng xanaa luñ ko defal ci kaas mu naan ko lay doon nee na loolu la ko nuru mu ne ndax boroom xam-xam yëpp genn fànn lañuy xam wala ñaar wala ñett ba ñeent waaye koo xam ne fànn goo dugg ak moom loo ko laaj sa kàddu du daanu mukk te tontuwu la mu ne kooku kooku xam-xamam du lum jàng waaye lu lu mu naan lay nurul kon day mel na tontu na la sëñ la ko sëñ bi waxoon danaa la danaa la jox xam-xam bu gën ba nga wuti woon bu ko defee nag bu dee ay meloom sëñ Bachiru sëñ Moustapha Abdourahmane Lo ci téere bi misaal na jëmmi sëñ Bachiru nu meloon nee na ku taaru la woon loolu moom defe naa ñëpp ñëpp mën nañ ko seere ñëpp dégg nañ ko maanaa nee na bind bu yam la amoon itam amul dara lu ëppoon lu ëppoon ci moom nee na ko bëggoon yére yu weex la fu mu masatoo git day jublu xibla mooy li ñuy wax penku nee na bijaaw bu jekk la amoon yori faas bijaaw ba nag nee na ba woon ca kawarug bopp ba sax moo ba moo maanaam bi woon ci sikkim bi moo ëppoon ba ci kawarug bopp bi noonu la ko misaale nee na ku wegu la woon nag ku am xëy ba ku tëy maanaam ku noppi woon ku fiiroon ci jikko yu baax yi nanguwul kenn jalgati ko rawatina ngor ak jom nee na ko déggu la woon ku dëggu te dëddu àdduna lool nag nee na am na genn ngoon ma ñëw fekk mu jàng alquran ba agsi ci aaye qul man xarama zinata allahi allati axraja li ibaadihi wattayibaati min rizqi qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia xaalisatun yowma alqiyaama nee na mu ne bu dunu bu dunu aaye jii dey ak li yonent bi wax ne inna allah yuhibu an yara athara nicmatihi ala ala abdi bu doon lii day da ngeen du ma daray xoy-xoy àdduna ba mbubb yu baax sax du ma ko sol nan lii rek moom ma ci dugal kon cib xolam ku dëdd woon àdduna la sëñ Moxtaar Diop tiib moom dégg naa mu ne ku jege woon sëñ Bachir wala di magum taalibe di mbokkam nee na sëñ daana wax ne mbubbum teraanga mi ma sëriñ tubaa soral mbubbum teraanga mi ma sëriñ tubaa solal fas naa yéene bu ma ko koy delloo yow qiyaam benn gàkk boo xam ne àddunaa tax mu ne ci ci ne ne benn bëgg-bëggub àdduna boo xam du waral mu gàkk ne ko ndax man bépp bëgg-bëggub àdduna ku ma ko séqal bu ma xamee nang ca toll man naa la ko bàyyee ngir yàlla foofu la foofu la tolloon ci àdduna ku sii woon ci man a defarub diggante defarub diggante fu mu mas a ama rek xel yëpp ci lañ koy ci xelam ci xel yëpp ci moom la ñuy lay dem am na yu ñu mën a nattali am na yu ñu mënta nattali ak dimbali nit fekk nit ci xat-xat mu dimbali ko xanaa ci joxe menn misaal rek moo xam ne da nga ca mën a xiyaasa la ca des sëñ Muxtaar Jóob ti ba mu dégg naa ko mu ne am na genn kilifa gu ay bor masoon a sonal lool ba ñu yóbbu ko tribunal ci yoon wi nee na sëñ Bachiru moom la yónni moom sëñ Muxtaar jox ko lim lim bu bari na ko boo demee neel président tribunal ba lii na ko dugal ca kontu kilifa googu te la bu fekkee mat na baax na bu matul la ca des na ko dindi ca turam def ko ci sama tur maa koy fay sëñ Maxtaar jóg ba ma ko laajee turu kooku nanguwu ma koo wax dafa bañ ma xam ne yar bi sëñ Bassirou defan ci ñoom mi ngi ci ñoom kon ndax muy sutura sosu mu fàttali ma sëñ sëñ sëñ Mat Lamin lam nattali woon ci Irwa un Nadim naar ba mu ñëwoon gànnaar jéem ma lor sëñ Touba te sëñ bi ne bu ko kenn laal sëñ Mat Lamin ne ab ab ay at gannaaw bi damaa dajeeg moom cees gannaaw sëñ Touba lu yàgg ma dajeeg naar bi cees man dong nga ko xàmmee ci ñi ma àndal murid yi kenn xamu ko ci. ndax moom fa ko fekk ba yëfee xew ci gànnaar nee na nga xam ne bu mu ne woon naar baa ngi nii taalibe yi danañ ko sonal mu ne waaye kon ay na xuluqu shaykh ana jikko yi sëñ Tuubaa defoon ci ñun kon yar bi yar bi waxtu ne day feeñ kon sëñ Bachir ku mënoon a defaru diggante la ba ci ci biir yoon wi ba ci biti yoon wi am na nattali bu sëñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum rahimahullah nattali woon ci mbooloo la ko nattalee benn conférence kon du ñuy nëbbu ne am na lu xewoon Tiwaawan sëñ Bachiru bokk ca ñëwoon di defare ne man maa dala woon sama bàyyi bopp bi sëñ Bachir noonu la ko waxe kon ni mu ko daa defee ci biir yoon wi na ko daa defee ci ci biti ndax daa wax ne man tuuril laa boo xam ne fas naa yéene dara du du du toj lu dul dab dama ko defar nee na loolu la noonu la jàppee woon boppam ku taqoo nag sëñ Tuubaa la nag taqoo moom lu yàgg a yàgg loolu la ciy firndeel am na lu muy naan la ci téere bi ne boobu da doon waxtaane sëñ Tuubaa ni mënoon a nelaw ay nelaw nee na ay nelawam ma ci xamoon mooy gannaaw gee daal léeg-léeg mu sóonu moom sëñ bi sóonu goo xam léeg-léeg mu ne tekk ne tekk ab diir tekk goo xam ne day mel ne ku nekk diggante nelaw yow te koy boore ki waxtaan ak waaraata yam daa def nee na waxtu ñaari waxtu la koy def ne bërit jóg delluwaat ci liggéey ba gan loolu la xamoon ci nelaw yi sëñ Tuubaa ne ne jaamu yàlla yooyu mu daa def nag ci guddi gi ñaar fukki atam yu mujj moom mi ngi junj yim taqoog moom na jaamoo yàlla yi sëñ Tuubaa jàngal xuraan ak bind moo ci ëppoon ne la ko jiitu te fekkewuma ko nag nee nañ ma julli ak zikar yi ñu xam nee na moo ci ëppoon kon ku yàgg a taqoog sëriñ bi la moo tax mu xam ci moom lu bari kon bu ñëwee ci taxawaay bi mu taxaw ci sàmm ndono li sëñ Cheikh ni nga ko junj léegi menelu baaxil xadim rek doyoon na ci lim ci wane ci melaw sëñ Tuubaa melaw ña mu yoroon nga xam ne loolu moom dara jiitu ko ci ndono li nii la sëñ Tuubaa meloon nii la magi murit yi meloon minal baaxil xadim ni nga ko waxee daanaka mooy delluwaay bi féete kaw ci yoon wi ibnul mualla benn borom xam-xam la wax na ko nee na lawlaahu maa urifa alxadimu kama shifa lawlaahu maa urifa nabiyul mustafa nee na ashifa ni mel téere buñ bind ci yonent bi bu yéeme la mu ne noonu la minanul baaxil xadim mel ci sëñ Tuubaa bu dul woon minan kenn du xam sëñ Tuubaa nee sëñ Modou Moustapha sëñ Bachir bi mu tàmbalee Minan sëñ Cheikh Khadim mii dafa bindub téere mu sëñ mu Mountakha ci sëñ Bachir tudde ko Cheikh Mouhamadul Bachir fi sutur wax na ca téere ba ne sëñ Modou Moustapha am na luñ ko jota wan ci Minan booba noppeegut waaye ñu wan ko ko bañ ko ko wanee na daf ne sëñ bi dey bu fekkoon am na dara lu muy geesu gannaawam ci àdduna jumaam ji lay doon ak téere ne dañ koo tooke képp ku cay xuus di ca wax lu ñaaw yaa ngi mel na kuy naan tooke muy posen te nag kan mooy nituk yàlla ko ko doonut neexut a kon maandu moo gën a moo gën a wóor nee na ñaari xaddis yi sëñ Tuubaa daana bari lool lu koy lu mu koy wax taalibe yi al muslimu man salima al muslimuuna ab jullit dëgg mooy koo xam ne jullit yëpp mucc nañ ci lori loxoom ak lori lamiñam ak xadis bi ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut kuy wax na wax lu baax te noppi indi na ci téere bi sëñ Tuubaa num sàmmo woon sàmmoo nee na lépp lu mas bokk ak nit da ko koy bàyyee nee noonu la meloon lépp lu masa bokk ak nit da ko koy bàyyee nee na jamono yi muy nekk jaareem jëwriñu liggéey bi nee na ku ñu wax sëriñ ma xaari jalla tuddoon daana ko wax ne sëñ Tuubaa da leen daa bari lu mu leen daa wax ne leen yëfi jàmbur bu leen ko jege sëñ Basiru teg ce ne fekkee naa benn bis gis naa benn bis benn jaam ca jamono yi amee boo xam ne kenn ci taalibe yi da koo bokk ak ñaneen yanañ ni bokkam yoo xam ne duñu ay taalibe ñoom jaam ba ñëw ci kër gi nag ànd ak taalibe yi ci lu dul ndigalul ñam ko bokkal nee na ba mu yëgee loolu dafa jox ndigal mu na leen yabal leen ko mu dellu te lii bu leen ko nangooti mukk tegal leen ca ne leen xool leen fan yim fi am ànd ak yéen di liggéey ngeen xayma ko nu mu toll ngeen gën na ngeen génn ko jox ko ay kilifam kon noonu la sàmm woon ba àq kenn du ko du dugg këram nee na loolu daana ko def lu bari sëñ Basiru teg see ne loolu nag fàttali ma sàmmonteeg biir ka mu daa sàmmonte moom sëñ Tuubaa nee na waxtu joxe farata yàlla sëñ tubaa daagul daawul nangu kenn defal ko dara lu dul bu dafa joxe fax waxtu ba noppi nee na bu ñu nekkee ci liggéey ci biir kër gi liggéeyal sëñ tubaa nee na bu ñu xasee taxawal julli kenn du yëngal dara lu dul bu dañoo julli ba noppi nee na gan bu ñëwee ci kër gi wax ne xamul aadaam waxtu julli jot bàyyiwul la muy def bu jullee ba noppi day wax ne fam yemoon ba waxtoo jotee nañ yàq lépp ba mu julli ba ñëw mu soo ko defaraat mu teg ca ne bëccëgu weeru koor noonu la sëñ Tuubaa meloon ku wóorut daawu ko nangoo liggéeyloo dara noonu la ko waxee wa ida kaana fi nahari ramadana aidan fa kadalika man lam yasum laa yaqbalu a yastaamilahu fi shay nee na sëñ tubaa noonu la sàmm woon ci biir ak ci biti moo indi sëñ tubaa mu fonke woon wax bismillah léppam da koy delloo ci boromam nee na lépp doo xam ne mas nañ ko koo indil te tudduñ ca yàlla day wax ñu ñu delloo ko ñu delloo ko lal buñ ko lalalee te ka koy lal waxut bismillah day wax nañ ko lalle ba koo ko wax ko bu dee ndox muñ koy sottil noonu bu dee ñam buñ ko andil noonu mu teg ci ne fekke naa benn bis benn taalibe indil ko ñam ka ko defar xamul aadaam ba mu ko tegee sëñ bi ne ba fi mu ne ni yéen ngi yéen a ngi may indil yéen a ngi may indil ñam yoo xam ne moo ngi médd ñooyam ci man ne leen man lu ñu tuddul yàlla ak médd laa yamale te loolu nag mooy xadis ba yonent bi waxoon ne kullu kullu amrin di baalin laa yubda'u fiihi bismillaahi bi bismillaahi fa huwa abtar mu mbir mu mën a doon mu am solo buñ ko tàmbalee woon bismillah du am barke barke du ca ne naka noonu sëñ Basiir ne wàllu nday jooru noonu la ko sëñ Tuubaa fonke woon lépp looy def loo koy defal jaar jaarale ko wàllu nday am loolu it nekk na ci Saxiihul Buxaari yi nee na yonent bi dafa bëggoon nday joor nee na léppam nday joor la buy soli dàllam nday jooram lay jiital buy buy buy jàpp mbiram yëpp ndayjoor lu am ndayjoor ak càmmoñ rek ndayjoor ba lay jiital nee na sëñ noonu la mbiram meloon nee na am na bis ma ñëw ci moom nee na ku ñu wax Mouhamadou Fall yóbbante ma ci moom àddiya nee na ba ma ko jubee fekk boobu mbubb yi ñuy sol poche yi wetuk càmmoñ lay féete nee na ba ma dugalee sama loxo sama wetuk càmmoñ rek nee na mu xool ma gëdd ma ne ma ndax noonu la nee na ma ma ma ma na ma ma tiit ndax nee dama ko ragaloon lool te loolu mooy melaw ñi ñi nekkoon ak moom ñëpp kenn ñi ma wutoon sëñ Tuubaa sëñ sëñ sëñ Mbàkke Buso ma ngay wax ca way wa di wane sëñ Tuubaa ni mu meloon naan naan mahibun tara jullaasahu xawlahu wahum nawaakisu xursun minhu wal kullu jaathimu nee na sëñ Tuubaa ku tëy la woon ku raglu ñi daa toog ak moom ñëpp da gis bu ñëwee dañuy jàtt seeni loos ñoom ñëpp boofu mel na ay luuna kenn du wax wa laysa bi sultaanin yuxaafu aqaabahu wala aqaabuhu wala jawruhu aw basuhu aw madaalimu na takat du woon buur buñ buñ boo xam dañ koo ragal ngir boo ko ñàkkee teggin mu duma la du woon loolu de lu tax walakinna ma taqwa huwa al izzu kulluhu fa ma tazza illa al atqiya wal akarimu nee ragal yàlla gi nekkoon ci moom rek moo taxoon kenn ñemewu ko moom sëñ Tuubaa sëñ Bachirou nee na ba mu ma xoolee gëdd ma nee na ma tiit daal di jël àddee ji jaarale waat ko sama loxol ndeyjoor nee na mu ne ma zaatu chimal junj juma ne dangay ngay jëfi jëfi waa càmmoñ nee na sëñ Basiiru ci ci ci nee na ma daldi xam ne nag samay samay teggin li ma ci am li ma ci amagut ful na ko ndekete loolu lépp ci yar la bu ko sëñ bi di ko sëñ bi di yar ci téere bi indi na sëñ Tuubaa nu mu xaajo woon ñëpp ñu mu woon ñëpp sëñ Basiru nee na bari na lu ma daa gis tiijaan yi muqaddam yi daa ñëw ci moom njaareem sëñ Tuubaa di leen yaatal di leen waajalal ay barab yu set ni naa juróom-ñaar fukki at te danaa naafila kaamil bi ci ñaar rakka te du ma yëg benn benn genn taayal du ko yëg naka loolu nag lépp ci karaama yi sëñ Tuubaa yu limu yi la bokk dana waaye sëñ daam tegal ma ca neme wa lastu bi ajaba mina Cheikh Ibrahima Fall waaye kat gënumaa yéeme seex Ibra gënuma ko yéeme ndax Cheikh Ibra mbooloo ma daje ca moom di ay boo doomi buur ak góor ak yu jigéen ak murit ya nekk ca moom ñëpp mu leen di defar te yàqalu ko dara ci li mu war a liggéeyal sëñ tubaa li mu a liggéeyal jullit ñi kon kooku melu ma ne moom sëñ Bachiru ne fa taajabtu min tabassurihi wa adami ru'yatihi nafsahu fi ma yéemu nag ci gis-gisam bu sori boobu ak ñàkk a gis gi mu ñàkk a gis boppam ci jëfam kon magi murit yi nuñ mën a toll dañuy defe ne seen mbokku murit moo leen féete kaw kon loolu itam ci doonali la bokk murit yi war a xam fu ñu toll nattali na lu mu jële ci Cheikh Ibra Fall ci téere bi ne Cheikh Ibra nattali na ma ne keroog ba mu dajeeg Sëñ Tuubaa lam jëkk a fas ak moom dane ko na nga xam ne dara génnewuma sama kër lu dul sàkku sëriñ bu ma àggale ci sama borom ne ko loolu rek moo ma génne Cheikh Ibrahima wax sëñ Tuubaa ne ko maa ngi jaayante ak yow ci ne bu ma séddu dara ci àdduna dara lu toll na benn kawar soxlawuma ko sama yitte yàlla la ak kër gu mujj ga di àllaaxira nee na sëñ bi ne ko kon nag àdduna bu fay yaakaar sax am mbaar waxuma laa kër ak njaboot kon li li am lépp la sëñ Abdoulaye waxoon rek dafa mel na ndab lu ñuy duy rek ba muy rogalaat rogalaat ja rek moo waaye la taxoon ñuy dem ñuy duy ndab la dara jóge ci kon sëñ Bachiru taxawaay yu mel noonu la amoon ci ndonol yi ndonol yoon wi da gis dëkk yu bari yi mu sañc ñi nga xam ne xëy na bu fa demutoon xam gi sëñ Tuubaa dana des lu mel ne Saalum Saalum gis nga nam fa nam fa meloon njàmbaar gam fa wane ci yéemeeg sëñ Tuubaa sax sañ-sañ bi mu jëlee ci boroomam am na bis mu dem Saalum ba ñëw sëñ bi ne ko dangaa demoon Saalum ne ko yow dangaa bëgg Saalum tee nga loo yor ma jaay la Saalum nee na mu génn dara jox ko mu ne ko jaay naa la Saalum loolu nag sañ-sañub sëñ Tuubaa la digganteem boroomam bu ko defee noonu itam la la la la la la taxawoo yoon wi gannaaw sëñ Tuubaa sëñ ci boppam moo ko boole woon ak Cheikh Moustapha moom ci nekkam sëñ Cheikh mii nett li ci téere bi nett li boo xam ne dane sëñ Muxtaar Diop moom ma waxoon léegi moo ko nett li jële ko sëñ Sall ambassadeur ne sëñ bi da leen woolu ne sëñ Modou Moustapha defal Bachiru muy sa rakk ju lay dimbali wax loolu itam sëñ Bachiru defal Moustapha muy sa mag julay lay dimbali ne leen def naa seen mbir muy lan def naa seen mbir muy lan loolu noonu la ànde woon ba mu ko sëñ Tuubaa waxee loolu rek nee na amoon na ci daaray boppam sëñ Bachir ñaar fekki dongay tarbiyee yu koy liggéeyal da lay jël ñëpp jox leen seex Moustapha mu boole leen ak ay dongaam yebal yóbbu tindaw di foofu la tàmbalee booba yit la leen waxoon bés na leen na ngeen wut ay kër kër yoo xam ne du ngeen soree ku ci julli gee ba noppi soxla moroomam man koo gis bala tëdd moo taxoon ñu fii ci Kayal sëñ Mour Moustapha sanc Touba Kayal sëñ Basiiru sañ ca wet ga Daaru Salaam Kayel seen diggante di toll ci ñaari kilomètre seen mbokk mu ñuy wax Siidi Albuuri Njaay moo leen ko moo leen ko dogaloon bi sëñ bi bu mag bi delloo ci boroomam nettali xaw naa bari wuute tuuti waaye am nañu wax ne sëñ Basiiru la fekk bu ñu delloo ci nettali sëñ Cheikh Fatak Jóob moom dafa ne sëñ Moodu Moustapha boobu ma nga ñaaxeen gannaaw bi bu ca yégee dara ci baatin la bis bu mu xëysee moom booba waru ci yëgu ci dara boobu moom la jàpp waaye sëñ Moustapha ci téeréem bi nee na sëñ Bachir booba njaareem la ko fekk nekk sañ nekk néeg sëñ Moxtaar si la bëkk nekk sëñ Moxtaar xamal ko ne ko sëñ bi yënguwut fan yi yëpp mu ñëw ci néeg bi ba gisal boppam ba gis na sëñ bi nekkatu fi mu jël otoom dem ñaaxeen jëli sëñ Modou Moustapha day mel na ñaar net lii sax mën naa daanaka wuutiwut lool xewuta a lool waaye sëñ Cheikh Fatakko moom nee sëñ Modou Moustapha ba mu ñëwee ba gis sëñ bi ci melo ba mu génnee taxaw la mu njëkk a wax dana sëñ Cheikh Khary Dieng demal wool ma Bachir ba mu ñëwee taxawaay ba lépp ñoo ko ànd ba sëñ Bachir laybal mu ànd ak ña àndal indi sëriñ Touba Touba sëñ Modou Moustapha des njaareem moom foofu la ñu tàmbalee ànd sëñ Bachiru dafa wàcc këram moom weeru tam xarit yi wamsas wamsas la sëñ bi génn àdduna dellu ci boroom radiyallahu anhu ca weeru koor wa la sëñ Moustapha Bachirou gane àdduna sëñ Moustapha Bachirou gane na àdduna ba wàcc dañuy wax fer sëñ Bachirou jaarul këram lépp mi ngi ci sëñ Modou Moustapha ñu taxawaay bi nga xam ne mbirum raay beeg yëpp noo ko ànd lépp ànd ci Serigne Cheikh Seck li waral lijjanti ko ci yoon lépp gouvernement beeg lépp mu ànd ak moom liggéeyal lijjanti ko ba ci ba ci raay bi bi ñu koy gas danañuy danañuy faral di di lépp naan sëñ Bachirou doxee na njaareem ba la ko indi mooy dafa am néegub néegub càkkar néegu ñax bu ndaw buñ ko doon sampal fu ñu toll ci gasub raay bi sampal ko ko mu ne fa buñ ko rombee tuxal ko noonu la doxee ba raay bi àgg ànd ak ànd ak moom liggéey bi moo tax sëñ Modou Moustapha nangu wutoon sëñ Basiiru sore ko fu ñu mës a jëm ñu ànd sëñ Malick Dieng ma ngi koy wax ca ca ca marché ya ba ba am di Moustapha dafee xalifa moo doon loxoom te fa mu teew mu teew fa ba yi bas siiw na ci réewi Sénégal mag yi bas moom lañ ko doon wooye muy sëñ Modou Moustapha moo tax Cheikh Abdou Cheikh Abdoullah al Alawi mi bind Nafahatul Miskiya maa ngoy ma ngay wane taxawaayub sëñ Basiru ci sëñ Modou Moustapha ci watam lahu min axihi al murtaba wa safihi al bashiri huma min al asri xayru muwasiri nee na noonu taxawaay boobu la amoon ci moom bi bi mu bi mu demee noonu am na jamono yi ñuy gas raay bi am na bés sëñ Modou Moustapha booba liggéeyu raay bi xaw naa xaw naa xaw naa tàmbalee doy waar ndax booba taalibe yi sonn nañ yu bari di xew sëñ Modou Moustapha ci pas-pasam mu àgg ci bëgg a jëli daaraam ya ca toolee di liggéey ngir ngir jumaa ji mu jël leen ñoom ñëpp ñëw ci gasum raay bi sëñ Basiir proposé ne ko kon proposé ko ne ko da nga may bàyyi ma wër réew mi wër murit yëpp kenn ku mën a ñëw ñëw ku mën a joxe sa mbooloo joxe ko ñu ñëw ci liggéey bi ba loolu moo mujj lijjanti lijjanti problème boobu amoon noonu la taxee woon noonu la wéy waaye teewul loolu lépp nag ci njàmbaaram mi ngi wéy di sanc ay dëkk sanc na dëkk yu bari ba ci Tuubaa Mbul gi nga xam ne ba ma ko sancee ne fa lañ ko wooyee ngir mu ñëw ngir tawate Cheikh Moustapha ji nga xam ne moo ko yóbbu mu ñëw nag ak moom diir bu yàgg-yàgg ba Cheikh Moustapha dellu ci boromam kon taxawaay boobu la amoon ci ci ci ci ci ci sëriñ bi gannaaw Cheikh Moustapha ci la soog a am kërug Touba sëñ Bachirou ci penc mi fii ci gànnaaru jumaa ji gannaaw Cheikh Moustapha la ñëw defar ko dégg ñaa ci sañ Xasan Ndiaye ci dongay tër bi yi la bokkoon dëkk Daaru Minam Saalum mu ne bi ñuy jamono yi ñuy defar kër gii kërug sëñ Bachir googu ba takk fa juróom-ñaari nekk lay wana ne kon sañ sëñ Touba gërëm na liggéeyam bi mu ànd ak Cheikh Moustapha nee dafa bi sëñ Hamsatu Jaxate dox waax waax waax mu tàng jëm si ci ñoom loo xam ne miinuñ ko woon sëñ Hamsatu ku ne dégg na ne sëñ sëñ Tuubaa mayoon na ko di ko gis moom gannaaw bi mu ñibbisee Tuubaa nee na ba mu ñëwee ne leen sëñ Tuubaa ndigal lu mu ma jox fu mu jeexee rek ma joxaan ma leneen ndigal ne ma tey nag moo ma yebal ngir ma seere si gërëm gu mu gërëm seen liggéey bi te mooy kër ga ñu nekkoon di ko liggéeyal sañ Basiiru fii ci gànnaaru jumaa ji bi sëñ Mouhamadul Fadil ñëwee mu noonu nekk loxoom at mu mat sëkk nekk na ko moom ànd ak moom lépp ci la ko proposé woon ñu ànd dem ca gouverneur général ca Ndar ngir ñu lijjanti biir yoon wi doomi sëñ Tuubaa yëpp ni ñu magante ak lenn ci sëriñ ñu bind ko ni ñu toftaloo ba problème du am ëllëg sëñ Moustapha Bachir nee na am na bis ma wax ak man ne ma damaa xam ne loolu bu ma ko defatoon ba tubaab bi sañe ko ëllëg kenn ci yéen jamono mën na koo yóbbu ci mu tiir liñ dindi woon waaye ginnaaw tubaab mbind la xam te ku fi nekk ca loolu lay wéy boobaa kenn du ci man dara loolu liggéeyam sëñ Bachirou la gannaaw bi nag gannaaw bi mu ànd ak sëñ Fallou noonu it ànd bu rafet boobu ànd bu rafet lañu àndoon loolu la koy firnde sëñ Assane Ndiaye moomu nee na bi ñuy liggéey kër gi ci Touba am na bis sëñ Modou Xabbaan sant leen ab santaane ci këram néeg buñ koy tegal nee na ñu dem ca bañ wàññi koo jaar ci jumaa ji fekk sëñ Fallou mi ngi toog ci nga gis gi nee na moo leen woo boobu sañ Basiiru waxtaan ak sëñ Fàllu ngir dem njaareem moom dekkali njaareem nee na ba mu ñëwee sañ Fàllu na leen laaj leen ñu xamal ko ne ñoo ñooy liggéeyal sëñ Basiiru ci kër gi mu ne leen am ngeen lu ngeen di mosa lu ngeen di lekk ñu ne ko waaw mu ne leen bu dund bi jeexee bu leen dem njaareem ñëw leen ci man ma jox leen ko ndax kuy liggéeyal sañ Tuubaa maa la war a yor kon ànd bu rafet boobu itam noonu la ko ànde woon Cheikh Amadou xam nga gannaaw loolu sëñ Habib Mbacke imam ma waxoon léegi di borom xam-xam ci la ko jële jëlee Touba sëñ Bourou Moussa moo ko andi woon Touba jëlee ko Njaareem muy jàngal njabootu sëñ Touba gi tolloon ci jàng gannaaw sëñ Bourou Moussa la ko yóbbu Mbul daara ji wéy ñu bari ci kilifa yoon wi tey jaar nañ ci daara ji loxol sëñ Habib lépp taxawee sëñ Cheikh Modou Bachir la. Njaareem googu nag la dem ngir dekkal ko Njaareem it xam ngeen ne ci ndono li gën a kawe ci yoon wi la bokk Njaareem. wax jam ca waxoon rek doy na moom sëñ Tuubaa ñu ngi may sàkkoo yu bu njaaree ñoom tubaab yi waaye bu ñu xamoon sirru baatin bi na ci sama dem njaareem duñ ma fa yóbbu ndax sama dem njaareem seenug torox rek la ñoom ak seenug suufe may man muy sama yëkkatiku di sama des faw kon njaareem ndono lu lu am solo la sëñ Tuubaa dundaloon ko lool ba sëñ Mat Lamin di wax ci téere bi naan fasaaratil qaryatu amara qaryatin bi masajidiha wa madaariseha alquraaniya wal almiya nee na njaareem mujjoon a nekk dëkk bi gën a dund ci wàllu diine nga ay jàkkaam ak yi daaray alquraanam waaye daa mujj nag kër ga ràpp sëñ Modou Moussa moom bi bi bi bi bi demee teelut lu dul jumaa ji moom dafa tëj kër ga ñëw Touba na ci jumaa jeeg raay beeg tubaab yeeg coono yi ñu ko teg teelut dara ñu bàyyi noonu njaareem kenn teelu ko gannaaw bi nag bi yu bari lijjantikoo nag la sàkku ndigal ci sëñ Fallou dem njaareem nag dekkali kër gi moom tamit dekkal ko dekkal al daaray alquran ja dekkal dekkal daaray kaamil di fa defe julli ko rek julli tabaski yi di fa gàmmoo di fa weere woore weeru koor ba fulku bi ñu jàng moo ko fa tàmbale woon di ko jàngaloo sëñ Mat Lamin Jóob Dagana loolu sëñ Tuubaa ko daa def moo daa dajale mbooloo mi di jàngaloo xasida te lu mu daa def ci weeru koor la ko daa ëpp lu mu koy def foofoo ba loolu mooy mooy yooyu ba fi mu ne nii am na boroom xam-xam bu mag di kilifa sëñ Moxtaar Mbakke doomi Maam la sëñ Habib Mbacke moom moo ko jàngal sëñ Habib bu daana wax ne am na ko ne ma nee na ko daana seere xam-xamam xam-xamam bu bari wane na kilifa yi mu jàngale yëpp ci ñi ci ëpp xam-xam la bokk moom sëñ Maxtaar Mbacke am na xasida gu neex gu mu def di ci misaal ni njaareem ràppe woon nañ ko sëñ Basiiru dundale dafa jëkk xësal afa rasmu daarin baada layla bi aaqili xalat min samirin moom bu safian kawamili kër gi laylaa dëkkoon ràpp na ñi daa ngoonal guddi di fi ñëw di waxtaan kenn ñëwatu fi ay ata ngi nii kenn jaaru fa ba mandarga ak jeexit yi fa amoon yëpp far na ne maxat rasmahal ariyaahu kulla ashiyatin wa tawkaafu aqtaarin gawaadin hawaatali nee na mandarga yene woon ci kër ga ngelaw lu bari la fay ngelaw ngoon gu nekk taw ya tax na lépp raaf kër ga ràpp kenn xamatu lu muy nuru tadakkartu id waafaytu layla wa qawmaha fa faadat gurubi mithla bi wabili nee na man mi fa daa fekk Layla sëñ Tuubaa lay misaal ba mu fa nekkee man mi ko fa daa fekk ak nitam ña fa nekkoon bu ma seetloo nii kërug Layla gi mel tey sama rongo ñi day sotu settu ko mel na waame waame wuy taw dal di ñëw di dem nag ba ñëw nag ñi ko sëñ Basiiru dundale wala zilta tux yi yaa malaadi bi jurbilin jamia furudil muntaqa wan nawafili yàlla boo dañ di dundal njaareem di ko dundal ci farata ak sunna yi muy yàlla li jur bila li jur bila ala al amsaari turran mafaaxirun faaqat bihi kull al qura wal maxaafili njaareem féete na kaw tey njënn yëpp kër dëkk yëpp ci sababus dëkk gi nga fi dëkk ñoom sëñ Bachiru fa sukkaanuha naalu tibaatan wa xudwatan bi sukunaaka fiha yaa karima chamaili ci dëkk nga dëkk njaareem rek tax na ñi fi dëkk ñëpp sax ku ne ñee leen ñu seddu cër yu duun ngir yow mi ñu dëkkal yow mi nga xam ne yaa yor jikko yu tedd yi ne ko ci la ko waxee ba naan fa yaa ahla jurbel abshiru bi bashirikum bihi suttumu kullal wara bil fadaili kon way wu neex woowu naka noonu poroxaan noonu la ko dekkale poroxaan ci ndoonali la bokk jamono yi muy dem saalum la ko sëñ Tuubaa digal ne ko soxna si soxla na wettel mu taxaw ci poroxaan at mam fa jëkkee dem 1941 la dem gu metti la woon ku ñu wax sëñ mat laam la àndaloon sëñ mbay laam sëñ Moodu Faal alquran moomu sëñ Tuubaa soroon ak ku ñu sañ sëñ mu Mouhamadou Diané mi nga xam ne moo doon yoroon kaaroot ga mel na sareet boobu ci la ñuy dugg ba ñuy dem ba mu ñëwee ba Nioro dafa laaj kan moo fi xam barab ba ñu teg ko génn ñu tegtal ko génn góor góor gu ne ko bu mu amee lu ma yóbbu day xam naa ko waaye booba kenn mënu faa dem dafa woo murit yi ñu indi si indi simi ñuy gor tàmbalee Nioro ba Poroxaan nga xam ne ne xëy nañ di gor ba takkusaan lañ àgg Poroxaan boobu noonu la meloon góor ga ñëw ba agsi ci benn bantub jana buñ fa samp ne ko fii la nee na mu wàqi mu am kum digal na ko wàqil mu wàqi ba jot suuf su weex mu génne ko xool ne ko dolli la ci barab baa ngi nii fanaan fa fanaan fa jàngal xuraan tudd yàlla noonu la ko dundalee ba 1952 mu defa woote màggalu poroxaan ba fi mu ne nii gis ngeen nii poroxaan mel loolu mu dundalee woon yoon wi nag cig nekkam ndono li loolu la fi bàyyi digal ko ak njabootam sëñ Moustapha Bachiru nee na ci téeram bi mu bind ci moom dafa bind ci moom ab téere nee na am na bis mu wooma sëñ Cheikh naa waxtu waa ngi dem waaw kon ñu tënk nee na sëñ Moustapha nee na am na bis mu wooma ne ma sëriñ Touba dañoo ma maag Cheikh Moustapha ca njaarim ne ma na ngeen di taxaw ci luy dëgëral yoon wi ak lu koy jëme kanam ne ko ndigal loolu nag maa ngi la koy joxaat yow ne ko boo demee ba gisatuma maa ngi lay dénk ku mag ci waa kër sëñ Touba yi nanga nga ci moom mooy ku ci xalifa sëñ Touba te lépp loo mën na nga ko dimbalee ci luy jëmee yoon wi kanam sëñ Moustapha nee na ma ma bàyyi loolu ci sama xel li ma wax. nee na keroog ba mu delloo ci boroomam ba bis ba delsee maanaam sarax si jàll ba mu wóoru ma ne li ko sëñ Touba kon lépp dara génnu ci nee na ci ca suba sa di talaata ca laa xëy dem ci sëriñ Cheikh Fatma. nee na sëñ Cheikh da doon mbokkam doomam la waaye rakkam la si ndax soxna Roqaya Mbéru ak soxna Yàlla Mbéru ñoo bokk nday ak baay kii mooy maami soxna Fatimatu maam kii mooy mi soxna Fatma noonu lañ demee kon ay doomi nday lañ ci wet googu nee na ma dem ci moom ne ko looloo tax cër yooyu mu am ci sëñ Basiru am ko ci moom nee na ndax sëñ Moustapha dafa wax ne sëñ Cheikh am na ganeen wet goo xam ne maam la ci man loolu la wax nee na ma ne ko nag looloo tax ma ñëw jëkk laa wax xamal la ne la sañ Bachir lii ma lii la ma digaloon bu fi jógee naa dem ci ki fi nekkal sëñ Touba nee na sëñ Cheikh sant ci lool sant it ci jëkk gi ma ko ko jëkk a wax mu sant ci nee na ba ma delloo ci kër ga fekk am na ñaari mbokki sëñ Bachiru di xaritam yoo xam ne diirub dëj bi juróom-ñett fan yi ñu ngi ci kër gi di ma wettili muy sëriñ Cheikh bal la ak sëriñ Modou Xabaan nee na ñoom laa àndal dem ci sëñ Fàllu jébbalu ji nee na ba ma demee wax nettali sëñ Fall li ma sëñ Bachiru santoon ba tax ma def lii mu ne ma loo lii dey bañ nekkee jolof ak sañ sëñ Modou Moussa ak sañ Baara non nii la ko dénke woon wan ko ne ko kon wërtif la ci ñun ñëpp ñu dénk ko sunu njaboot ndax loolu mooy loolu mooy jéeme yoon wi kanam moo tax sëñ Modou Moussa sañ Moustapha Bachir ci tool la nekk jamonoy sëñ Abdou gis nga ni mu àndeek sëñ Abdou ba sëñ Abdou wax na ñëpp di ko dégg ne sëñ Moustapha mooy sama loxol ndaajoor di sama loxol càmmoñ teg ce ne féete ne ma fépp yàlla na ko yàlla féete fépp loolu wax na ko ñëpp di ko dégg bi sëñ Mountakha mi ñëwee loolu la wéyal digganteem ak sëñ wu daanaka jëwriñam la woon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Cheikh Seydil Muxtaar moom na mu taxee woon ci ñoom moom barki démb la ñëpp teg nañ ci seen bët loolu lépp mooy sàmm ndonol li leen sëñ Bachirou bàyyee tamoo luy jëmee kanam yoon wi ba fi mu ne nii xilaa bi mu nekkee xalifab sëñ sëñ Tuubaa itam loolu la wéyal sàmm ndono li gis nga njaareem nga mu nekkoon di fa taxawal ndonal sëñ Bachiru ci julli ayit yaag tebés gàmmo yaag ak fulku baag yëpp ba mu nekkee sëñ Tuubaa daf koo bàyyi ay rakkam lépp ñëw Tuubaa ngir xam ne lii la ñëpp bokk ngir luy dundal yoon wi lu koy jëmee kanam na leen ko sëñ Bachiru digle digale woon loolu rek moo andi lii kon loolu moom moom la sëñ moom la sëñ sëñ sëñ Muntaxa di wéyal loolu mooy ndoonal sëñ Bachir kon dong ngay taalibe yi mu yoroon loolu la leen daa wax sëñ sañ Moxtaar Diop tiib moomu dégg naa ko mu ne sëñ Bachir daan leen wax ne sëñ Tuubaa kenn la du ñaar kon ku ngeen gis ci waa këram na ngeen ko jox ab cëram ba mu mat sëkk donte fenn ngeen mën a féete waaye bu leen leen xajale nee na sëñ Bachir daan leen wax lu mel noonu ci loolu la la nekk sàmm ndoonal yoon wi liggéeyal yoon wi ba jamonoy Wafsash 1966 nag la dellu ci boromam sëñ Ba Lamine Diop Dagana taarixal na dem gi fii laylatil ithnayni fii laylatil ithnayni rabbuna qada li cheikhina al bachiri ma lahu irtada nee na guddig altin la sunu borom dogal la mu dogal ci sëriñ Bachiru fii yebi min thani rafiay waf rabiay wafsashi fii achiri saati in tufattishi nee na guddig fukk ak ñaar ci rakk ji gàmmu la ci jamono yi fukki waxtu ci guddi na la Basiiru génn àdduna wa umruhu bi alxayaati bi minan fil maqbadil maqbaru daaratil minan nee ak dundam juróom-ñaar fukki ak ñaar juróom-ñaar fukki ak ñaar ci la toll nee na fa mu génne àdduna di daarul minan fa lañ ko fa lañ ko jébbale boroomam nii pencum daaru minam kon daal ñoo ngi ñoo ngi tëj foofu kon di sant ñëpp di ñaan jataay yëpp sëriñ bi nangu lépp liggéey bi lépp sëriñ bi nangu ko te lépp kon ngërëmul yàlla lay doon liñ jàng ci alquran ci wàccaay bis beeg bis beeg lépp sunu borom nangu lépp jotal yoolu bi lépp ci sunu maam ju baax ja soxna Maymuna ak mboolem bokkam yëpp noo ngi jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer